waaw euh, xanaa bi ñuy commencé information yi rek euh, tey dañ ni maanaam euh, Poutine moom moo xam ni tax mu bàyyi Zelensky di dund ba léegi ndaxte dafa am benn drone boo xamante ni dafa doon wàcc ci convoi convoi wu Zelensky bi bi bi kii di dem si rive droite bu xeer Kherson Zelensky fa la jëmoon mais autorité léegi ñoom dañu filmé woon position position bi. di demande autorisation pour di demande autorisation euh, palais waa pale bu Russie pour ba xam maanaam ñu euh, wàcce drone bi si ko si oto Zelensky beeg yooyu mais neen di dañu dañ jox ordre ni drone bi nañ ko éloigné maanaam bu mu laal si Zelensky daal euh, maanaam daal bëgguñu ko rey nee nag li tax Poutine bëggu rey Zelensky moom moo ko xam ndaxte ku nekk xam na ni Zelensky moom mooy président actuellement bu Ukraine tey bu ñu demee ba négocier di am euh, tey euh, Poutine du négocier kenn ku dul président bi te président bu deewee ana kan moom moo koy euh, kan mooy jël place am pour négocier accord de paix tey bu demee bay am. waaw te aussi fan yii la passé Zelensky Zelensky génnoon na ni waa Russie tenté nañu plus de dix fois bëgg ko rey moom Zelensky wax na lool nee na am na boo xamante ni service renseignement bu bu bu Ukraine ñoom ñoo éloigné danger bi lim na lim na lu bëri moom kii mais daal euh, lu mel lii lii day tegtal euh, waa si dañ ko bëgg wax ni ñun buñ la bëggee rey comme dañ lay dañ lay rey comme loolu du dara si ñun quoi comme bon. waaw ginnaaw bi Russie prép amee préparé xama Rostov usine Rostov boobu ginnaaw bi mu leen joxe deux cent deux cent mille euh, saar aussi tamit am na ay combattants yoo xamante ne ay xal ay jeunes lañu yoo xamante ni Russie préparé na leen ba pare pour au cas où autant buy dal ci ñoom neen soldats yu bëri la euh, nee na soldats yooyu nag euh, opération spéciale bi taxu leen a jóg mais mais pour pour bu bu waa OTAN bëggee dal si kaw Russie moom moo tax moom moo tax mooy jeunes yi ngeen di gis nii. waa sénateur bii di ba tey ci information sénateur bii di bii di Uta Markley moom dafa ni waa Europe bu fekkee ne maanaam dañuy jël seen tur bi ko biir biir Ukraine ñoom waa États-Unis dinañ retiré aussi ci alliance bii di l'OTAN moom la sénateur bi wax ndaxte euh, moom la sénateur bi déclaré ndaxte nee na euh, nee na scénario boobu États-Unis euh, desi boo amee États-Unis day retiré immédiatement si alliance boobu moom la moom la moom la moom la wax moom politique bi politicien boobu ndaxte nee na actuellement nii guerre nucléaire nee na nee na état États-Unis amul benn intérêt ci Ukraine pour ba ba tax mu fa yóbbu ay euh, ay troupe nee nag euh, euh, propagation boobu nga xamante ne occidentaux yi neen dañ koy def bu amee dara nekk loo xamante nii daal ñoom duñu ci ànd quoi waaw man nag li ma gëm ba gëm mooy que ni tey OTAN bu demee bay ba tey waa ma européen bu demee bay daal ci kaw Russie dana nekk loo xamante ni euh, lu neex euh, waa États-Unis lay doon ndaxte États-Unis tey bu ko bu amul li ko gënal mooy que ni européens yi dinañ songu Russie te moom du si feeñ euh, te benn instant man na wax ni mën na wax ni sama yoon nekku si mais man du te mën na fa yóbbu ay turubam si suuf comme ni mu demee si actuellement nii guerre bi nii ndaxte tey bu fekkee ni OTAN dañ fa dem. guerre bi dana wuute ndaxte F16 yeeg yëppay daw bombe longue portée yeeg yëppay daw té États-Unis li tax sénateur bi wax ni tay bu ni guerre bobu dafa am ñom li ni soralé moy que ni Russie bu demee bay dóor bombe nucléaire mu bañ léna laal té luma lèr ba lèr ba lèr moy que ni tay Russie bu demoon bay dóor nucléaire États-Unis du ci mucc waaw États-Unis daal euh, si gàttal daal li amoon deuxième guerre mondiale bi daal moom la bëgg maanaam am guerre benn guerre mondiale boo xamante nii daal euh, dina am te moom du si feeñ wala ba bu si feeñ dernier moment lay doon waaw mais nag euh, mën naa wax ni lu nu muus muus muus ñoom waa Russie ñoo leen gën a muus waaw te e, te européen yi ni am nanu fitu naan dañuy dal si kaw Russie waaw gëw ko bien vrai que ñoo ngi def seen exercice naan ay trois cent cinquante mille euh, soldats affaire yooyu di kii mais gëw ni ñoom am nañ fitu dal dal ci kaw Russie waaw ndaxte pays nucléaire moom du mas a perte guerre waaw ba xam biir Ukraine jamono yi nga xamante ni nii guerre bi contre offensive bi tar na biir euh, bi ñu jotee ay renseignement ni Russie mi ngi bëgg a dóor nucléaire tiitoon nan tiit boo xamante ne nii kenn doo kenn xamu ko ñoom ñoom seen biir ñoom européen rek waa États-Unis d'ailleurs sax defoon nañu euh, jamono yeneen defoon nañu ay réunion pour bu Russie dóoree euh, nucléaire nan lañu war a réagir rek affaire yooyu mais daal si gàttal daal sénateur boobu daal li muy wax daal daf koy wax pour rek jéem a tey bu guerre amoon ñoom wa États-Unis ñu bokk si ak waa occidentaux yeeg yëpp ba pare euh, te ba pare te ñoom duñ si feeñ ndaxte ba Donald Trump sax mi ngi koy wax euh, même Orban fan yi mi ngi koy wax mi ngi naan tey bu fekkoon ni euh, bu fekkoon ni États-Unis téye na xaalisam Union européenne téye xaalisam. kon guerre bi jeex na bu aussi tamit bu fekkoon ne maanaam États-Unis arrêté na xaalis bi muy jox euro union européenne ndaxte nee na union européenne xaalis bi ñuy jox états bi ñuy jox Ukraine waa États-Unis ñoo koy jox ñoo koy financé union européenne union européenne financé ka waa Ukraine ndaxte gars yi ñoom fu nekk la ñuy génn boo leen fàttee fii ñu ñu xooliwaat euh, beneen fenêtre bu nu mën a jaaree. waaw ba tey bokk na si information yi neenu waa Russie actuellement nii député yi dañu dañu pare pour euh, adopter benn loi pour maam Crimée am indépendance boppam ak souveraineté am mais dafay bokk si état dafay bokk si Russie daal mais république lay doon dëkk boo xamante ni daal dafay moom boppam moom Crimée ba tax na neen actuellement nii euh, plus de soixante-dix euh, députés. Euh, euh, euh, kii vote nañu loolu si si téem si téméer ba tax na neenu ancien procureur bu bu Ukraine actuellement nii mooy mooy Natalia Poklowski moom moo occupé époque moom moo occupé woon bureau bu procureur bu général bu Ukraine actuellement nii neen moom la nommé nouvelle procureur bu république Crimée neen majorité des voix euh, parlement bi ñoom ñoo voté loolu waaw ah, ba tax na daal actuellement nii neenu Crimée comme euh, euh, li nu def yeneen dëkk yi ba ñoo ñooñu yor seen kiw bopp maanaam ba bokk ci Russie neen actuellement nii Crimée foofu lañ jëm ak moom te ku nekk xam na ni Zelensky neen mën nañu perte lépp ba mu des Crimée Kirime moom neen neenu daaj Zelensky moom xaw ma mais nag bari na ay biam yoo xamante ni fa la nekk looloo tax mu ni looloo tax mu waxoon ni bari na dëkk yu mu limoon ni dëkk yoo mën na leen bàyyi mais Kirime moom neen def la tout ba récupérer rek waaw ba tey bokk na si information yi moom Medvedev dafa ni nee na négociation si 2000 24 euh, euh, bi lu mën a nekk la mais nee na première li ñuy teg mooy que ni première mooy euh, nee na opération spéciale bi ñu nekk nee na seen objectif ba léegi des na ndaxte seen objectif bokk na maanaam nu désarmement turu bu Ukraine yi maanaam waa Ukraine yi ñu bara bañ a yoreti arme aussi tamit état bu Ukraine aussi tamit ñu. maanaam euh, état euh, euh, kii actuel bi maanaam ñu bañ ko maanaam ñu rejeté kii bu état bu Ukraine quoi leen deuxième fois mooy ñu renversé maanaam ñu jële fi bandi yi nga xamante ñoom ñoo nekk ci biir ñoo nekk ñoo yore Ukraine actuellement nii moom la déclaré nee na aussi tamit nee na aussi tamit li gën a am important daal mooy que ni maanaam ñoo ngi koy xaas seen kanam ñoom ñoom kii euh, ñoom waa Russie nee li li gën a am important euh, mi ngi si mi ngi mi ngi seen kanam daal. nee na troisième bi mooy mooy que ni nee na Odessa ak euh, dina pro Prosk ak xarkof ak Nikolaev ak Kiev nee na ay ville lañu yoo xamante ni ay ville Russie lañu. nee na comme euh, ville yu bëre ni mu yu bëre yi nekk euh, kii ville Russie ni ko nekk nee na ville yooyu di Odessa ak euh, Dnipropetrovsk ak Kharkov ak Nikolaev ak Kiev nee na ñooñu neena dëkk yooyu tamit noonu la nekk ay ville Russie waaw ba tax na nee na actuellement nii ville yooyu nag ñoo ngi si état bii di maanaam ñoo ngi si. ñi ko occupé neen ville nag ñi ko occupé mooy que ni euh, dëkk bi maanaam zone bu mooy maanaam euh, dafa bëgg wax ni daal waa Ukraine ñoom ñoo occupé euh, ville yooyu mais ville yooyu yëpp neen si Russie lañ bokk ba tax nee na nee nag waxtaan nee nag waxtaan bi ñoo nee na ñoom ñoo ngi xaar waxtaan te aussi tamit lu mën a nekk la nee na nee na waxtaan bi tamit duñ ko mas rejeté Euh, ne par rapport ak euh, euh, dofi yi di dof yi par rapport ak dof yi nekk autorité ukrainien yi waaw comme maanaam daal nee na autorité yu Ukraine ñoom bu waxu affaire négociation bëgg na ko quoi mais ñoom waa autorité yu yu Russie yi ñoom dàqunu waxtaan waaw mais nee na nag waa Zelensky ak ay àndandoom ñooñu ay dof lañu moo tax affaire négociation waxuñu si dara waaw ba tax na daal Euh, euh, guerre bi looloo waral daal guerre bi continuer boobu ba léegi neen nag euh, ville yooyu noonu nee na ville yooyu noonu depuis premier janvier 2003 nee na un nee nee na un million et demi si ay nit maanaam dugg nañ si service yu waa yu riche yi ne ville yooyu noonu mooy ay ay Odessa Kharkov Nikolaev nee na am na ay au million et demi ay personnes yo xamanteni ñew nañu pour participer ci opération spéciale bi nga xamanteni ni Russie mi ngi koy def ak ay ak ak ay contractuel waaw ba tax na daal moom moom moom moom Medvedev loolu la déclaré waaw ndaxte ku nekk xam na ni euh, dëkk yooyu bare na ci ñoo xamante ay ay waa Russie lañu waaw mais nag président Zelensky moom li mu leen xamaloon mooy que bu fekkee ni yéen ay Russie leen ay Russie ngeen dem leen Russie ngeen bàyyi fi suuf si mais ñoom dañ bu ñuy dem dañuy yóbbaale suñu suuf waaw ba tax na tey guerre bi mu amee ñu déplacé leen am na si ñoo xamante ni dañu wàññeeku euh, dugg si force armée bu Russie bi ak ak ak ay service yoo xamante ñoo ngi bi biir euh, euh, biir Russie maanaam daal dañu bëgg wax ni daal ñoom. li riche yi def daal ànd nañ si daal ñoom population bi nga xamante ñoo nekk ñoo nekkoon si dëkk yooyu. waaw ba léegi bokk na si information moom moom euh, Joseph Borrell dafa déclaré ni stock armée yaa xamante ni ñoo ñoo nekkoon biir biir Ukraine nee stock yëpp jeex nañ nee na ba na nee na européens yi nañu euh, dolliwaat euh, dimbali Ukraine si armée yaa xam ñoo ngi koy jox nee daal. armes yi nga xamante ni joxoon nañ ko yëpp armes yëpp jeex na ndaxte ku ne Ukraine pour mu téye armée lu yàgg pour mu téye ay munitions euh, lu yàgg lu jafe lay ndaxte stock bu mu teg stock bu mu teg yi militaire am yi yor ak stock yi ñuy denc yu si bëri surtout stock yi ñuy denc yu si bëri Russie daf leen di yàq yu si bëri Russie daf leen di yàq loolu mooy tax pour ñu garder stock bu yàgg lu jafe lay doon. ba tax na moom mi nga xamante ni moo yor euh, moo jiite moo yore kiiwu européen yi moom loolu wax Josep Borrell moom diplomate diplomate bu européen moom loolu la wax nee daal nee mi ngi woo pays européen yi pour ñu ñu dolli armée euh, munitions yaa xamante ni jox ñoo ngi ko war a jox Ukraine ne ñu gën ko dolliwaat ndaxte stock yi amoon biir Ukraine yëpp jeex na. ba tey bokk na si information yi moom euh, euh, premier ministre bu France bii di Gabriel Attal moom dafa ni euh, actuellement nii cas de victoire bu Russie nee na Russie bu amee victoire si kaw Ukraine neen ñoom seen pouvoir d'achat da da dana menacé wu seen pouvoir d'achat dina menacé wu ñoom waa France ba tax na nee na loolu loolu wax moom Gabriel Attal nee na France. neena na Russie bu amee euh, euh, victoire ci kaw Ukraine aussi tamit dina euh, dina maanaam dund bi muy dund du doon dund bu baax ñoom waa France ci seen côté aliment alimentation ak aussi maam seen côté alimentation nee na day day seer aussi tamit surtout neen seen énergie tamit dana nekk loo xamante ni lu doy waar lay doon nee na tamit seen sécurité tamit lu doy waar lay doon. ba tax na moom Gabriel Attal nee na looloo tax ñoom actuellement nii li ñu taxawee ñu taxawee ko daal loolu la bëgg a wax ba tax na daal nee na daal looloo tax fan looloo tax président bii di Macron te fan yee paas mu wax ni dimbali biñ koy dimbali du am limite mais nag français yi d'une part booy xool ñoom dañu tàppet quoi man man personnellement li ma gis mooy dañ tàppet ndaxte malgré li leen Russie yàqal lépp li leen Russie yàqal lii yëpp. taxul ñu euh, euh, taxul ñu teel a dugg ci affaire bi quoi booy xool France fan yi kese la fan yi lay commencé dugg fan yi ba nga xamante ni nii gis na ni gis na ni kat euh, seen kii mi ngi menacé wu seen pouvoir d'achat mi ngi menacé wu yooyu looloo tax actuellement nii ndaxte tey ku nekk xam na ni France bu Russie amee victoire ci kaw Ukraine France dana nekk dëkk boo xamante ni ba moytuwul euh, immigration yu bëri dinañ ko ndaw waaw ndaxte comme ni mu ko waxee moom si moom euh, euh, Gabriel Attal ni seen dund dana seer seen côté seen seen énergie aussi tamit dana nekk loo xamante ni lu doy waar lay doon aussi tamit seen seen kii tamit seen sécurité tamit dana nekk loo xamante ni nii. Euh, lu doy daal euh, c'est maanaam daal dëkk bi dana dana manque sécurité daal moom la Gabriel Attal wax. ba tey bokk na si information yi moom chef de renseignement directeur principal renseignement bu Ukraine ñu naan que Naji Bournadov moom Bournadov moom dafa déclarer ni actuellement ni ñoom waa Kiev ñoo ngi préparé benn opération sérieuse jëm si côté Crimée si côté Crimée bi. ñoo ngi koy préparé opération sérieux ah, ba tax na daal neen aussi tamit euh, ñoom ñoo ngi def benn ay ñoo ngi def ay sabotage si côté euh, côté kii bi côté mer Noire bi neen ñoom ñoo ngi fay def ay sabotage kooku xam naa mooy ay euh, pilote pilote russie yéen fay wàccee wak ak ay ak ay bateau bateau yi ni wax ni fan yee passé yàqal nañ ko côté boobu waaw ba tax na daal moom loolu la service renseignement bu Ukraine bi moom loolu la déclaré waaye ku nekk xam na ni crime Russie daf si daf si def ba kanam ndax tey la fa teg si ay juntukaay juntukaay bare na trop pour Russie ak si fa nag daa nekk lu jafe ndaxte ku nekk xam na ni actuellement ni Russie mi ngi def benn contrôle offensive sa côté boobu jëm côté Odessa waaw xam naa nag kon ñoom xanaa bu ñu demee bay song si côté mer Noire bi lañ koy jaare waaye du côté Odessa yi waaw xam na fi ma koy jeexalee rek mooy que ni ba léegi biir Ukraine euh, moom maire de Kiev bi euh, ak Zalouzhny ak Zelensky neen tey bu fekkoon ni euh, ak élection dafa am ne dafa am benn sondage boo xamante ni def nañ ko léegi sondage boobu dafa ni fekkoon ni maanaam tey élection am na biir Ukraine. Zelensky dana euh, dana rawe Zelensky gi plus de deux fois waaw ah, nee na ba tax na nee na euh, kii bi nii la demee sondage bi nii la demee nee premier tour nee na premier tour euh, Zelensky dana am quarante et un pour cent nee ne Zelensky dana am vingt trois virgule sept pour cent nee na Poroshenko dana am six virgule quatre pour cent Poroshenko la mooy meeru Kiev bi nee nu nee nu Razu Razumkov dana am cinq virgule 6 pour cent si premier tour bi neen deuxième tour bi nag bu ñu fa demee si sondage bi def def na Zelenskyy dana am 67 euh, 67 euh, virgule cinq pour cent neen Zelenskyy kii euh, deuxième tour bi dina am deux virgule 5 pour cent si deuxième tour bi maanaam daal Zelenskyy ak Zelenskyy ñoom ñooy dem. deuxième tour bu boobaa te Zalouzini moom moo koy raw deuxième tour bi de nee na Zalouzini deuxième tour bi dana am 67 virgule cinq pour cent Zelensky am 32 virgule cinq pour cent nee bu ñu demee si élection législative yi nee na bologu Zalouzini euh, nee na foofu tamit sondage bi nu def euh, Zalouzini dana continuer di euh, raw Zelensky nee ba nee na si législative yi dina am euh, quarante six pour cent virgule quatre pour cent quarante six virgule quatre pour cent naan bologu Zelensky ñoom dina am vingt un virgule un pour cent mooy comme député yi daal. ba tax nee na euh, bologu meeru Kiev bi nag moom dina am sept virgule cinq pour cent neen bologu Protula moom dana am sept pour cent nee na bologu euh, Razumkov dana am six virgule huit pour cent. waaw benn sondage boo xamante ni moom la moom la def biir eh, biir Ukraine tey bu élection demoon bay am ndaxte bare na sax si eh, bare na ñu doon wax ni li tax eh, Zelensky dàq ka mooy que nii dafa commencé woon di dugg si côté politique ak yooyu waaw ndax mais nag avant ma koy dàq coow li bari woon na dana ko dàq du ko dàq am nañ problème amuñu problème ba ba mujj li am am. waaw ah, xam naa ne mbokk yi fii laay tàggatoo yeen di leen wax ba suba incha allah waaw ah, dina wax ne jàmm ak na nañu yàlla sàmm ba suba ak jàmm incha allah.